واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen seer te di leen ndokkeel di am mbégte bu baax a baax ci ñëwaat ci seen émission bu am solo boobu di gàgganteku gàggantiku nag muy émission boo xam ne eh, dafay aju ci ay laaj ak ay tont yu aju ci seen diine lépp loo xam ne dafay indil nit ki mu xam diineem ñu ci ànd ak ay boroomi xam-xam eh, seen seen bii di seen seen MKTV di leen ko defal ñaari yoon ci weer wu nekk muy le 9 ak le le 22. Eh, tey jii nag ñu ñëw fii ci Daaru Salaam Ndaam ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane ngir ànd ak moom ci gàggantiku ci suñu bindu tey. xam ngeen ne eh, weer yi jàll muy ñaari weer yi wala ñett eh, gisu leen émission bi waaye màggal gi ak gàmm gi moo ko waraloon émission yi jàll ñi ngi woon ci buntub laab ba léegi nag ki la des tey jii ñu ñëw ci tomb bu am solo ngir war cee gàggante ku muy lu aju ci wàllu faj aajo eh, suñu duggee ci biir waxtaan wi sëriñ bi danañu leeral yan àttee la ci lislaam tëral ak nan lañ ko war a defee kon sëriñ bi bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eh, sëriñ Abdou Lahad maa ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Abdou Khadir ak bokk yëpp ak mbooleem ñiy teewlu MK TV bi ngi wax ci ëttub xam-xam bi nga xam ne moo tudd Gàggantiku di ëttub bu am njëriñ ndax ab jullit ak diineem dañoo lënkaloo te l'islam day tere mu làmbatu dara kon lu ñu def rek dañ ko war ci xam kon di jéem a xam li ñu war ba sunu jaamu yàlla mën rafet lu am solo la kon ñu ngi koy rafet lu baax di ñaan yàlla defal ñu ci tawfiq te lépp luñ ci def ci lu baax yàlla na ko yàlla nangu. Mhm. jërëjëf sëriñ bi kon su ko defee ñu ñëw ci tàbbi ci laaj bi kon buñ buñ la doon laaj euh, lan la lislaam tërale wala nan la Euh, sunna jàngale faju faj aajo. jërëjëf sëñ Blaat xam nga faj aajo moom nit ñoo ànd yàlla mu bind doomu aadama noonu bokk na ci li mu wuutee ak malaaka yi malaaka du lekk du naan du tuur dugub du tuur ndox nit nag day lekk di naan di tuur dugub di tuur ndox am nag atte yu aju ci ginnaaw tuur dugub ak ndox ndax loolu ñuy tuur sobe la te nit nag bu soobee génnee ci moom. daa war ci moom mu laabal boppam buy génne sobe it daa am nu ko lislaam santaane nit du mala boo xam ne fu ko neex wala fu mu ko jotee rek mu génne fa sobe loolu it maa ngi ci bàyyiloo xel way jur yi jigéen ñi ndax fi ne way jur sax dëgg-dëgg la jur suñ ko waxee jigéen lay tekk dëgg-dëgg xale yu ndaw yi niñ leen di taxawoo ci bu ñuy dem woon nga xam ne dangay wut ab code rek teg ci ëtt bi dañu xam ne loolu teggin islam gone la waaye am na warma daa war am barab wana wa foo xam ne fa la war war nekk waaye teg ko ci digg ëtt bi daf ko yaramu neen ku dugg seen ko ñu ne gone gaa ngay faj aajo loolu du teggin te it bu ko màggalee mën naa tax yëg-yëg bi mu war a am ci sutural boppam du ko mën ndax day jàpp ne dara ayut te wolof nee na tàmm laa ko la mu xas ko da bàyyi tax yu mel noonu ci ndaw dañu war a fexe ba gone yi seen pod yooyu nañ koy dugal ci wanag ñu ne ci ruq ba bu mën a bu mënee gute dem foofa ci néeg waaye nañ ko làq daal ba bu noppee defaru ñu doon door génn ci nit ñi bu tàmmee loolu dana xam ne lii bu koy def daa war a làq eh, yi ma di bàyyi xel te léeg-léeg booy juri ñaare duñ duñ ko sóoraale su ko defee nag nit ki su fajee aajo ba noppi laabu moo ci des bëgg mu laabu laabu nag ndox dana ko def xeer dana ko def. ni nga ñëwee ci ci faj aajo ci tur mhm. ci ci tur ndox. Mhm. tamit ñoo bokk nuñ koy defee. waaw xam nga ñaari ñoom ñaar soriwul li cëpp it ñooy ànd. Mhm. léeg-léeg it nit nag dem ci woon ak tur ndox xëy na li ñu wute rek mooy tuur dugub moom da ngay yegg suuf xaw lan ndox yi dañ tuur ndox lañ naa la am na ci xaala yoo xam ne mën ngaa taxaw waaw xaala yoo xam ne am na jumtuwaay yi ñu tabax kii yoo xam ne rek rek waaw toog jafe ci waaw xam nga bu dee bu dee tuur ndox niñ ko waxee léegi bu dee barab bu sobewu wala misaal koo xam ne dañuy def loo xam ne ni lu ki taxawee moo fi muy tuur ndox ñooy tolloo foo ca suuf bu suuf doo fa tuur ndox waaw yi mel noonu loolu terewuñ ko ñu ki taxaw fa li am solo mooy na fexe ba laab mu nappee ne laab bu dal ci ay cëram bu dal ci ay cëram ndax moytu sobe su sobe la fu ko taq da ko Euh, moo loolu muy indi solos bu bu nit ki fajee aajo bu noppi moo xam dugub la moo xam ndox la tuur bu noppee war na laabu ndax li génn ci moom sobe te bunt ba mu doon génne des na kon nañ ko setal wala nañ ko fomp ba mu wàññi ko lool lool foñ mën a yem ñaar yooyu yëpp nag danañ jëfandikoo ndox danañ jëfandikoo ay bant danañ jëfandikoo xeer xëy na léegi li wutu bant yeeg xeer yi mooy coton yi ne ci yenn barab yi nañ xam ne. bu ma nee fomm ba mu rek lislaam ba ñu donte nag ndox a gën yi laab moom yëpp ndox ci gën am na yoo xam ne sax ndox moo ci farata moom ni ko biiram di daw du jëfandikoo ndox jigéen ñi nga xam ne ñaaree seenam tuur ndox day tasaaroo ñooñu duñ jëfandikoo ndox day fomm doy ndax day tasaaroo di jëfandikoo ndox ndox mi ñu jëfandikoo it nag du ayu ndox du ndox moo jot rek ñi léeg-léeg dañuy teg fee as njaq wala ab barigo euh, ne ngir demoon ak la waaye nag duñ bàyyi xel gone yi ci sotti di ko yu nii nag pod yu taqee ñu ci dugal ak ndox mi bu couleur bi soppi ko wala cafka gi wala xet gi mën a tutu wala am saabu boo ko yóbboo ci wanaago setal la man waaye mënut a laabal te ñaar yu bokkuñ nit ki mën naa raxas ba mu set wécc waaye laabut laab ndoxum mutlax moo koy def ndox moo xam ne boo ko fóonee ndox lay xeeñ boo ko muusee ndox lay sax boo ko xoolee ndox lay muru mooy cafka gi xet gi melaw yi dara soppiku na ko yàlla bind noonu la mel loolu ñu bàyyi ko xel nga xam kon ku ku jëfandikoo ndox moom saabu ba ba setit na nga wutaat meneen ndox moom tax bu ñuy wut a barab di fa def ndox yi mel noonu nañ ca bàyyi xel loolu faaw ñu bàyyi xel ne gone yi buñ leen ko baye nañ koy nemmeeku saa su ne ba xam ndox mi soppi wala soppiku ay léeg dañuy duy sànni fa rek saa boog waaye lu nekk ci nekk boo diggee tiim ko da a xam ne ndox mi kii ci loolu it nit ki buy dem wanag laabu gi ñuy wax bu mu ba dem wanag ba noppi dur ko lijjanti da koy lijjanti yóbbaale ci àll ba da ngay wut say bant wala mu ndox yóbbaale tax tax yi léegi loolu war a wàññi waaye nag bul dem ci wanag rek rëb yi daa nga ne nga daal accès rek tàmbali fa jaaju waaw bu tëj na am de léeg-léeg nga def ko ba noppi bu rëb yi tëjee nag te mënatoo jóg moo tax yooyu yëpp ñu da ko di bàyyi xel xool robinet yi ba xam mi ngi xel bu fi satal nekkee duy ko bo mu fees nga teg kon waajal nga dañoo bëgg nga waajal li ngay laa booba la nga faj aajo loolu bokkoon na waajal ko bu fa ndox nekkul nga yóbbaale ko génn wuti ko waaye yàkkamti dugg ci wanag bi faj aajo ba noppi laam bu dajoo dara bi ci des am ndox mu taaje noonu rek <coughs> xooloo ko wóorul hmm? mën naa sedd ba kenn du ko mën a jëfandikoo mën naa tàng ba kenn du ko mën mën naa niin ba mu taq leneen loo xam ne mënut a laabal yëpp nag da nga koy wàcc waajal la bokk moo tax mag ñi bokk na ci seen ñoos dañuy am satala spécial pour loolu seen néeg lañ koy denc gone du ko laal saa bu ñu jógee dañ ci moom la ñuy loolu it yitte seen yitte ak seen fonk diine moo taxoon lu ñu war a roy ci ñoom léegi nag day mel ne yooyu dañ nit ñi dafa du jox duñ ko yitte yooyu moo tax bàyyi xel la bu ko defee laabu bu nit ki faja aju ba noppi nag dañuy bëgg buy laabu mu njëkk a laabal kanamam fi ñuy tuure ndox di njëkk a raxas tàmbale ci kaw di wàcc bu dee ngaanuwaay rek la moom bopp bi lañ la raxas ba fi mu doon génne loolu lañ gisat waaye bu fekkee lu ñuy wax mesure da ca génn moom awra jëpp lay raxas lépp bopp beeg jëmmu jëpp su ko defee bu noppee ci Euh, tuurukaayu ndox mi door a jàll ki nekk ci tuurukaayu dugub <coughs> te dañuy bëgg yit bala ko raxas mu tooyal loxoom ndax sobe boo jékki jekki laal koog sa loxo da cee ay jeexit ndax yaram daa am ay bën bën yu sew yoo xam ne dana neex gi des ci lu yàgg wala tooyalal sa loxo ba nga xam ne ni sobe su du ci dëgër boo noppee it nga raxas ak saabu njëkk dañ daan wax nga wut bomb suuf léegi na nga raxasu ak saabu set Euh, bu ko defee loolu musal la ci sobe seek ya cay ya cay bu sobe si jeexee it la cay des maanaam micro yi ca mën a juddoo ak kon laabu googu it daa bokk ci farata ndax dindi sobe su taq ci yaram farat la ndax li ñuy tuddee xabas mooy booy julli bul taq sobe bu sa yaram taqoo sobe boo julli julli ko du baax kon loolu moo tax ñu ñu war a bàyyi xel euh, laabu googu su ko defee nag ñu bàyyi xel ne bu ñuy laabu tur ndox la ñuy laabu ak tur dugub waaye ngelawal ngelawal jërul laabu xëy na lu lu lu xaw a mu ci nit ñi ngelawal du sobe doon day toj njàpp waaye du sobe bu doon sobe ku ngelawal sa yére ñun la dem fóoti moo tax kon jërut laabu lu dul ne day ngelawal lu weesu ngelaw ba dara génnaale sobe su génnaal su boobaa dañ ko war a raxas moom waaye tuur ndox ak tuur bu ci nekk dañ ko war a laabu laabu it ndox ci gën ba ne ko ci àll wala feneen te amoo ndox it te am koton yooyu man koo fomp ba mu set nga xam ne la ngay mujj fompe boo ko xoolee taxati dara lu sart war ngay fomp di fomp ba nga xam ne ba mujj ba ba mujj génn du tax dara loolu mooy war na set ku mën a boole ñaar sax moo gën bu fekkee barab bi coton dafa am ndox am fi jëfandikoo coton ba jëmmi sobe si dañ nga ndox bu defee jeexee ba yëpp mën a jeex loolu it bokk na ci li ñu bëgg ñu di ko bàyyi xel bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy laablu yi mën a laablu it bari na bu weesoo ndox kon lépp loo xam ne mën naa dindi sobe rek wax na waaye nag dañuy dañuy dañuy sant bu mu doon lu am worma bul fekk luñ bind am bind bul fekk aw ñam lu mel ne mburu mu wow wala ab cox yooyu aw ñam la ab yax it deesu ci pomp ñamu jàmbor la suñ bokki jinne yi eh, dañuy jëfandikoo yax yooyu moo tax dañuy tere ku ku ku ku ko def ak neefere daaba yi neefere nag wala neefere yooyu du sobe nit ki du ko jël di ko fompo ndax malay jinne yi ñoo koy lekk maanaam alal jàmbur la moo tax yooyu yëpp it nit ñi dañuy bëgg ñu ko moytu mooy yëpp nag nit da koy xam mooy tax mën ko moytu moo tax buntu yu mel nii ku ne ab julit bu ne war naa daf yitte ci di ko jéem a jàng fexe ba xam dëgg-dëgg daal moom lu ko lislaam sant ci mel nii da nga ci xamaale it ne lislaam diina ju set la deket lépp set la bëggul ko tax fenn say demoon ak say tuudox lu mu jege-jege saa boo ko defee rek war nga laab saa boo koy defee war nga bàyyi xel yi ko defe loolu it jàpp naa ne mat naa bàyyi xel lool ci eh, jamono yi ñu toll nga xam ne eh, nit ñi Euh, roy ñeneen ñi day na jëbb ba yàlla nga gis ñoo xam ne dañuy jàpp ne yooyu yëpp sax du farata ñu ne ci ndaje ñu seen koo xam ne dugg ci wanag duggaat wanagoo ndox newu fa mu faj aajo génnaat ay ay mu kalaf la ñuy doon loolu it nag nañ xam ne jul nit ab julli bu di ànd ak sobe wóorul ndax dañuy wax mag ñi dañuy wax ne doy na gàllaaj sax ni ki taxoog laal wala ngaa taxaw laab nag mooy da ngay kon du jàpp rek boo jàppee taxaaratul xadas nga am waaye taxaaratul xabas ngir nga am ko moom mooy da ngay dem woon ak lu waxtu wu ne ngay nemmeeku sa bopp am na ñoo xam ne seen sàggan tax na léeg-léeg dañ jékki-jékki seen i yére sobe nañ ci te duñ ko bàyyi xel ndax lu koy waral mooy ba ñuy denc woon ak duñ laablu na mu waree duñ toog ba yëg ne aju ji mat na léegi léeg-léeg yooyu def ci seen def kon xam nga njàppum ci la julli timis xëy na maanaam diggante bi ñàkk lu mu aajowoo ci dara waaw xam nga bu fekkee ne am na nit ñoo xam ne xëy na seenu aajowoo mën naa am bëriwut euh, léeg-léeg duñu wax ne li gënul sax moom nag ndax li ñuy tuddee li ñuy tuddee njàpp màggat hmm. mooy njàpp moo xam ne la taxoon nga jàpp def fajar jotee nga jàpp julli fajar njàpp màggat na bu tisbaar jotee doon des sa njàpp tujut sopp nañ nga yeesal sëriñ mag bi radiyallahu anhu bokk na ci liñ nettali ci moom nee na seeli njàpp du ko jox borom muy jàpp màggat waxtu jot de dem yeesalu jàpp loolu mu tudd yeesal mooy kii jàppaat te jàppam tujut waaye kii a tuj ku yeesalu day jàppaat mm-hmm. su ko defee nag bu fekkee ne yàlla bindee nit ki noonu dara ne waaye bu fekkee day nit ko xam ne tayeel jëfandikoo ndox mu bari la ba tax day soxla woon ak waaye day téye téye ba dafa yëpp loolu baaxul lislaam santaane wu ko baaxul ci wér géramit nag te ñaare loolu ku koy def rek boo màggatee màggataale wéradi wala am yu manque ci yoo xam ne nekkoon na ci day day day def loolu moom docteur yi dañ ci soññe bu baax yooyu saa bu dalee nit ki na yëg ne eh, da war a gaaw a génne ndax day lu aw ñam wu dugg ci yaram la ci xikma suñu borom day tasaare kii lii dem ci yax yi lii dem ci deret ba la ca des nag amatul njariñ mooy génn noonu loolu ci xikma suñu borom la loolu nag boo ko fa loo ko fa tëyee benn seconde bu mu fa defate rek day lorooyee jëriñatu moo tax fi ne tàggat ndaw ñi ba nga xam ne buñ buñuy buñuy bu ñuy téye yu mel noonu saa bu leen dabee rek dañ dem faj su jegee jëye gópp nag ñu xam loolu tegtal wéradi la ñu dem faj waaye ñenn ñi bañ ñu jàpp ne nit ki kat damay tuur ndox daa jege tax nga di ko téye loolu wóor bëgg jàpp ne waxtu ne maa ngi ko jàpp wala dina ci am ndaje bañ a jóg yooyu yëpp nañ xam ne du solo nit daal na xam ne nit la su ko aajo demee noonu la tax noonu lañ ko tuddee aajoy doomu aadama la aajo joo xam ne bu ko defee da ko war a faj yàlla nag dogal na euh, giw àgg na ci léegi barab yu nekk nit ñaa ngi amoon nag yu am sutura mm-hmm. loolu amatul amatul jafe-jafe kon bu njëkkoon bi nga xam ne nit ñi ci mbedd yi lañ koy def booba dañu wax dañuy tere barab yooyu aajo léegi amatul jafe-jafe waaye bu njëkk perte moo tax dañ daan wax naa bu ko kenn def ci kaw yoon bu ko def ci kër garab bu ko def ci fu ñuy roote wetu dex wala yu mel noonu ndax yëpp bu fu niñ jaaree dañ di su bokkul ndax nee nañ ko jënd bul fekk barabu jàmbur a def ko fa ndax da ngay tooñ su boobaa taxal ko sa way xëy na léegi bëreetut xëy na rek bàyyiloo xel ñi nga xam ne tey bu xeexoo amee ay ay màggal ay ndaj yi di am mm-hmm. léegi ñu dugg ci kër yi dem ci wana yi fuñ bedd fuñ jot rek def ko fa loolu dañu xam ne ak tooñ la du yiwe lislaam it dig diglu ndax taqal mbedd yi sobe léeg ni jaar fa ay yërëm taq sobe te yàqu ko teg tooñ la goo xam ne mënoo baalu borom ndax gisoo ko loolu moo tax moytu la kon fexe ba nite yiwe saa bu faj aajo jotee nga dugg ci kër ñaan leen ñu wax wan la fa wane wa nga faj ajo jàpp dem sa yoon waaw loolu mooy li nga xam ne jaar nañ bàyyi ko xel bu baax a baax seen laat jërëjëf <coughs> kon mu ñu bàyyi la nga tàggoo dafa mel sax waxtu eh, yam na ci jeex waaw kay waaw kay jërëjëf seen laat kon xam naa di sant mbokk yi di wane ne buntu yi nag dañu xam ne buntu yu war a yitteel ku ne nit lañ te it yittewoo mi war tàmbalee ci ndaw ñi ma lay far wax hmm. ndax nit lu mu man shabba ala shay'in shabba alayhi lu naar yi wax euh, mooy tàmm laago la nit lu mu xas tàmm ci lay wéy gis nga mag ñi nga xam ne aaja woo nag la ca war jëf yombu leen dañ leen cee tàggatunti nga yooyu yëpp nag kon dañ ci teel a namm xale yi ñu xam ne ay jullit lañ buñ juddoo ñu teel leen a tàggat ci loolu buñ ko màggalee jafe-jafe du taw loolu laay bàyyiloo xel mbokk yëpp ñu xam ne it buntuñ war di topp la lu ci ump nit mu di ko laaj ndax mooy tax diine mën a jag ndax jaamu yàlla yi jullee ci gën a màgg te julli laab ab sart bu laab amul jul du am te yonent islaam noonu na bu yemal xaamee li mu njëkk a seet jëfi jaam ñi dégg ak jaam ñi liñ seq julli la ci seet bu jagee lépp jag bu jagul dar du jag te loolu sëñ mag bi radiyallahu anhu firi woon na ko ci ne bu wax ne dee leen julli te di ko jubal bu ngeen dee julli te di ko jubal lépp lu ngeen dëngaloon julli gi mën na ko jubal waaye moytu leen di julli di ko dëngal ndax dana waral boo léegi lu ngeen dëng jubaloon julli gu dëng nga dëngal bokk na ci julli gu jub nag sart yi mu war a àndal mu ànd ak moom sart yooyu nag laa ba ci jiitu jërëjëf sëñ bi jërëjëf sëriñ bi jasakallahu xayran mbokk yi ñuy seetaan kon yéen ko déggandoonu muy bunt bu am solo boo xam ne gàgganteku nañ ci tey mu aju ci wàllu faj aajo ci ni ko leerale kon mbokk yi képp koo xam ne topp nga waxtaan wi te am ci loo doon fal wala loo xam ne jàppee woo ko noonu na xam ne nii la ko lislaam jàppe muy lu am solo kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom di la gën a dolli tawfeex ak wér ak yàgg fi di sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen émission gàggantiku te seen seen MKTV di ko defal ci ñaari yoon ci weer wu nekk ñu leen di sant di sant Sëriñ Abdou Khadir Bousso ak mbokk yi ñu doon topp yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.